xibaari biti réew yi dañ koy dooree ak li nga xam ne moo di benee jamono ji nag ak jaxasoo am ca lool rawatina kër gi nga xam ne moo di kër goni yaay gannaaw nag ñu nekk ca kujje ga ba ñu sàkku ñu dakkal jongante yooye foofee nag ñenn askan woowu daal di dem ba fi nga xam ne moo di kër goni yaay daal di baari mbetal ay pëna deree nag daal di leen di sànn gaz lacrymogène ñu bëri nag daal di jàpp ne dañ koo bëggoon a jàpp nag booba xibaar nag way tekk der weddi nañ ko ba mu set ñu dem ba fi nga xam ne moo di Guinée ñu dem ba fi nga xam ne moo di Guinée ak déggoo am na fa nag ci diggante nguur gi ak syndicat jàngalekat yi tey ji nag di bis bi nag leen liggéeykat yi gannaaw bi nga xamee ne nag gannaaw bi ñu jàmbatee la leen naqari nag ca lañu ñu amal googu déggoo nag di xamle ne nag seeni jàmbat yooyu danañu ca sàmmonteeg moom gannaaw nag bu yàgg ba léegi nag ñu bankoon seeni loxo nag di xamal ne balaa yàgg dinañu tàmbaliwaat liggéey bi ñu daaneeli ko ak fi nga xam ne moo di Algérie jamono ji nag gannaaw ay jafe-jafe yoo xam ne nag amoon na fa ca nguur ga ba ñu déjjatee fa ki nga xam ne moo di njiitu réew ma di Abdoul Aziz xaan nag jamono ji nag askan wa la ñuy sàkku mooy ñu amalaat fa geneen nguur jox ko civil yi ñu ngeen jëf loolu la leen indiloon ci xibaar yi bitim réew yi